maa ngi leen di indil ni Bassirou Diomaye Faye ku wax Ross Béthio wax ñu mën a liggéey ku tudd waa Ross Béthio wax ñu mën a béy ñu nangu béy ñu bëgg béy ñu am xam-xam ci béy mbokk yi Sénégal at mu ne dina jële bitim réew benn million ak ñeenti téeméer ak lu ëpp juróom benn fukk ci ay toni ceeb muy ay milliards yu dul jeex ñu génnee ko sànni ko ci àll bi dugal ko fii pour ñu dunde ko pourtant de fii ci Ross Béthio bu ñu leen defaloon li ñu leen war a defal jox leen li ñu leen war a jox ci am jumtuwaay ci ay équipement ci sécuriser suuf si ci financement bu baax ci encadrement ci assistance ak formation mën ngeen bay ñaari millions ngi tonnes ceeb fii ci réew mi dootuñu jëndi ceeb politique agricole bii ñuy doxal ci réew mi pilotage à vue la jëmul fenn jëmalewul réew mi fenn politique boobu danañu tàmbali soppi ko muy politique boo xam ni béykat yi ñooy ñëw ànd ci ak gouvernement bi nga xam ni seen i soxla ak seen i bëgg-bëgg ak fi ngeen bëgg a jëm ak seen i objectif mooy nekk ci boobu politique mbokk yi projet bi am na gis-gis ak yéene financement yoo xam ni fii lay ñëw yu adapté yoo xam ni dina oyof dina yomb ngeen mën cee jot danañ leen gën a jàppale pour rendement yi ñu consolider ko yokk ko ba nga xam ni lépp lu ngeen bëgg di ngeen ko ci am boobu yéene la ñu am ci yéen mbokk yi seet nañu tawat yëpp xam nañu ko parce que bu dee da ngay béy benn suuf si nga yor di ci liggéey moomuloo ko mënuloo cee mën a yóbbu ci banque mënoo am garantie mënoo am crédit donc sécurisation du foncier mooy bi ciy jiitu boo sécuriser ba noppi dajale béykat yi jàppale leen dimbali leen ba ñu am ay kuréel yu organisé wu pour mën a def liggéey boo xam ne dina mucc ayib boo ci paree di nga leen former boo leen former di nga leen wutal crédit financement yu adapté ak nii ñuy liggéeyee waaye di nga def mécanisation agricole indi modernisation ak machine yoo xam ne nag dootuñu jëli yëpp bitim réew fii lañ koy defaree ci réew mi mu adapté suñu type dagriculture yoo xam ni ñoom lañu am waaye dañu bëgg def lu ñuy def intégration agriculture industrie maanaam lépp lu ñu fi def rek ñu daal di koy transformer fii ñu defar ay entrepôt de stockage maanaam soble bi bu ñu ko dindee fi mu ne mënoon nañ ko denc lu yàgg bu fekkoon am nañu fu baax fu ñu koy stocké waaye dafa mel ni melul noonu loolu yëpp nag boo ko paree di nga am ay circuit de commercialisation ñu mën ko yóbbu dakaar yóbbu ko Touba yóbbu ko ba Casamance ci ay conditions yu baax yoo xam ne sénégalais yi dinañ ci jot ci njëg gu mucc ayib te dootuñu ko xaarati bitim réew dootuñu fi indi ta ta euh, di wala ñuy layee ni guerre am na Ukraine donc njëg yi war naa yokku wala wala Covid am na njëg yi war naa yokku ñu bëgg le 24 mars bii ñu jëm ngeen massivement jóg ñu voté le projet mu gagné. bu ko defee toute la transformation bi mu laaj ci agriculture ñu indi ko su ko defee Sénégal daal di jëm kanam ñu am lu ñuy wax souveraineté alimentaire ndax looloo gën a dëgër sécurité alimentaire